إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk yi ñi ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsagalaat nañu ñu dajawaat ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ni moom mooy ab téeréem ci li nga xam ni nekk na ci jeexitalu weeru barkeel wi ñu doon dund jamono yi yépp guddi gi di ñëw mooy guddig ñaar fukk ak juróom-ñeent ngalawaay ñu góor-góorlu ci suñu kemtalal kattan bu dee soob na yàlla mën na koo def muy guddi gu mujj ci weeru koor muy benn ñaareel bi it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax laylatul qadr nañ koy xool ci guddi yu tool yi ñetteel ba it am na ca lenn ci borom xam-xam ñoom dañuy naan laylatul qadr mooy guddig ñaar fukk ak juróom-ñeent lu ci mën a am ñu bàyyi ko xel ci bañ koo sàggane yal na yàlla yombalal ñu ci luñ cey jural ngërëmam ak yërmandeem kon ñi ngi nekk ci aaya juróom benn fukk bi ak benn ci li nga xam ne mooy suratu nuur incha allah bu dee cheikh ousmane pare na barakallahu fikum a'uuzu billahi min ashaytaani rajim suñu boroom jalla wa ala mu ni laysa ala al a'ma xaraj nekkul ci kaw silmaxa day benn ngant wala ala al a'raji xaraj nekkul ci kaw ki lafañ benn ngant wala ala almaridi xaraj nekkul ci ki fee ci kaw ki feebar benn ngant wala ala anfusikum amuleen it benn ngant ay mooy benn xat-xat an taakulu fi buyutikum ci an taakulu min buyutikum ci ngeen di lekke ci seen kër yi aw buyuti abaikum walla ci seen kër baay yi aw buyuti ummahatikum wala seen kër yaay yi aw buyuti ixwaanikum wala seen kër frère yi aw buyuti axawaatikum wala seen kër sœur yi muy seeni jigéen aw buyuti amaamikum wala seen kër bay tax yi ci lenn ci naka wolof di waxe mooy ku bokk ak sa papa ndey wala baay aw buyuti ammaatikum wala sa bajjen bi bokk ak sa papa ndey wala mu bokk ak moom baay aw buyuti axwaalikum wala ci seen kër nijaay yi mooy ka bokk ak sa yaay ndey wala baay aw buyuti xaalaatikum wala seen kër tante yi ki bokk ak sa yaay ndey wala bàyyi ci jigéen aw ma malaktum mafatihahu ak lépp loo xam ni da ngeen a moom ay caabiim yor responsabilité aw sadiqikum wala ngeen lekkee ci seen seen kër xarit laysa alaykum junaax du ngeen am benn xat-xat an taakulu jamia ci ngeen booloo lekk ci mbooloo aw ashtata wala ngeen lekk ku nekk ci wàllam fa ida daxaltum buyuta heure bu ngeen duggee ci la nga xam ne nii moom mooy kër ya fa sallimu ala anfusikum nuyu leen ci seen kaw bopp kaw bakkan yi tahiyatan min indillah nuyoo bi bawoo ca yàlla mubarakatan tayiba di lu ñu barkeel di lu teey kazalika yubayinu allahu lakum al ayat nii la yàlla di le leeral la ñeel leen lii di ay aayaam mi ay tegtalam laallakum taaqiluun ngiree ngeen doon ñoo xam ne ñu xellu ngeen mi ngi noonu bokk julit bokk na ci aada yu arab yi daan def mooy dañ daan am rëy di toog ak ab silmaxa di bokk ak moom la nga xam ne nii mooy bool ba ñuy lekkee wala ab lafañ di bokk ak moom bool wala kuñ yëg da nga feebar di bokk ak ñoom bool am na ci ñeneen ñoo xam ne nii it ñoom dañ daan xalaat ni su dee ne day dañoo en bokk ak ñoom dañ leen di lor ndax silmaxa moom du gis li ñuy war a lekk lafañ bi toogaayam du baax aji feebaram ji lekkam ju demee noonu yooyu yépp nekkoon ay ngànt ba nit ki nga xam ne daa am personnalité daal daawuñu ko gis muy lekk ak ñooñu suñu borom nag mu ne déedéet na doon daa silmaxa daa lafañ daa feebar ñu ñépp yem jullit du boddiku mbokkum jullitam ngiree lor bi yàlla teg ci moom ca loolu it mbokk di lu ñu war a xeex ak suñuy bakkan te mooy ñooñu yàlla nattoo ñu silmaxa ñu lafañ ñu kaza wa kaza ñu bañ leen a jàppe rek ñoo xam ne nii source la ñu ci ñu jox leen ay sarax et puis terminé waaye ngal la waaye ñu respecté leen jox leen cër jox leen yëg-yëg loole ci jaamu yàlla yi gën a màgg la bokk lu bari ci ñun lu suñu àll woon néew néew gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bis yàlla mas na koo nattu nattu ba mooy lan ay kilifa ci waa Quraysh yu musul nangoo toog ak moom di ko déglu bis am ci ñëw ci moom na ko waaw Muhammad léegi nag jàngal ñu alxuraan ji ngay wax ñu dégg mu yàkkamti ko lool commencé di leen waar kii di Abdullah ibn Ummi Maktum jóge fële moom xamul lu xew ndax silmaxa la ñëw rek toog ci yonent bi ya rasulullah ana lu mujj wàcc ci alquran yonent bi alayhi salaam ñëkkal kanam gi sallallahu alayhi wa sallam bëggu koo jànni bëggu ko wax lu bon mais ni mu ko dérangé tax na mu ñëkkal kanam gi ñëkkal googu mu ñëkkal kanamam moo tax yàlla wàcce alxuraan bu ñuy jàng ba ila yawmi diin daa ji ne abasa wa tawalla an jaahu al ama wa ma yudrika laallahu yazakka ba ba saar ba di sori suñu borom ne xoolal mi ngi ñëkkal kanamam ndax silmaxa bi moo ñëw di ko laaj kan moo la xamal ne lii muy laaj boo ko ko laajee moom dana ci waaru jëfandikoo ko ñii nga jàkkaar lool say-say si kéefër gi ndax jàpp nga ne jubluwaay bi nga am ci ñoom ñëpp xir bi nga am ci ñoom ñëpp ndax jàpp nga ne daan jëriñu te na am naka yàlla waxe woon noonu la demee ñooñu mu xiroon di leen waar ba saggani silmaxa ba dara la leen jëriñul amma silmaxa boobi yàlla mujj na ca yëkkati ay darajaam fu ko yonent bi daan seen mu ñëw day jóg taxaw gàttandu ko teeru ko dalal ko fi muy toog ne ci kii la ma yàlla yedde ñaari noddkat la yonente bi alayhi salaam noddoon al amoon ki ci jëkk mooy bilal ñaareel ba mooy abdullah bi ñu lay wax bu fajar jotee bilal moo daan nodd nodd gu jëkk moom moo daan nodd nodd ñaareel tax yonente bi alayhi salaam daan wax naan bu mu leen nax noddug bilal bilal bu ngeen ko déggee moom ci guddi lay nodd da leen lekk di naan ba baa ngeen di dégg abdullah ibnu ibnu maktum ngeen doog a arrêté seen lekk almuhim lañ ci doon jubluwaay bi rek mbokk ñooñu ñu yàlla nattu ñu tudde leen suñu société des handicapés ngallaawaay xam nañ ne ci jaamu yàlla gu rëy ca la bokk mooy ñu jox leen cër jox leen gëdd ndax lii leen yàlla teg ci nattu rek daa doy mais buñ ci bëggee boole nag la nga xam ne nit ñi sofantal leen loolee beneen mbir la. gaa yi nett lii nee nañu benn gaana ci Dakar benn waay daa ñëw jël cent franc bi wëndeel ci bopp bi sànni ko ko mu jëlaat ko wëndeel ci boppam sànniwaat ko ko ne ko li ma yàlla teg rek doyu la nga bëgg cee dolli leneen yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk julit loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom bàyyi loolu daa di nag ni xam leen ne yéen julit ñi am na da ngeen a war a ànd ak seen xel islam bëggul xaarankat jullit dafa war a am personnalité te bokk nu lu yàq personnalité doomu aadama bi mooy nga nekk xaarankat moo tax suñu borom utal ñu ay kër ne kër yii mën ngeen caa lekk loolu muy benn ñaareel bi ba suñu borom wàccee aaya bi wax ne wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen lekkante seen alal yi ci neen da nga daan gis ku dem kër frère am ane diw ñu ne ko daa génn añ jot mu roccee ko dem ah ndax sama frère a joxe añ bi ca xawma ndax ca joxuma ndigal dem sa kër bàjjen sa kër bàyyi tax ila axiri loolu nag bi mu amee suñu borom yàlla nag ne déedéet amu leen benn ngant ci lekk ci seeni kër borom xam-xam yi ni ñi lekk seen kër mooy lan mooy ñii yàlla nar a tudd li tax yàlla jëkk seen kër dalay xamal ne lekk sa kër ak lekk ci kër ñii may wax benn la amul benn différence donte ne am yenn ci mu fassir ni ñu koy firee seeni doom ndax yàlla tuddul fi doom ca yeneen bi alei salaam mu ne al waladu min kasbi abi doom li mu faggu bàyyi ko moom kon lekk sa kër doom mooy lekk sa kër al muhim mooy suñu borom mi ngi xamal rek ni lekk seen kër ak lekk seeni kër bàyyi mooy mooy benn la abaikum mooy sa baay wala sa maam ba adama alayhi salaam ñooñu mooy say baay gannaaw ba la nga xam ne mooy seen kër yaay mooy sa kër yaay boo demee ca kër ga fekk fa ñam yaay nga faam yaay nekku fa bu ñam bi taajee lekkal boo gisee ñam lekkal gannaaw ba suñu borom wax ñu seen frère kii yéen a bokk benn ndey wala ngeen bokk baay su ngeen bokkee ndey ak baay moom waxi noppi ñëw nga këram yëgul tinul añ bi sotti na lekkal ba suur boo santee caamit bu la neexee añ bu pare nga añ bi su fee waay buñ la joxee nga dóor ba gàtt ndax dagan na ci yow yàlla la ci jox ndigal même bu dee sa frère yëgu ko gannaaw ba suñu borom wax suñu sœur mooy ki nga xam ne jigéen la ngeen bokk ndey wala ngeen bokk baay ku mel noonu it da ngay gis ne lañ waxoon ca kër frère ba moom lañ ciy wax ñaareel ba muy amaam mooy kii moog sa papa ñoo bokk benn ndey wala moog sa papa ñoo bokk benn baay wala boog ñu bokk ndey ak baay loolee moom boo demee këram mbokk lu fay lekk moog la ngay lekk sa kër bopp ñoo yem na doon moom yëg na ko na doon yëgu ko ndax yàlla jox na la ci digal gannaaw ba sa bajjen niñ ko waxe sànq sa bajjen mooy ki nga xam ni moog sa yaay ñoo moog sa papa ji la jur ñoo bokk benn ndey wala ñu bokk benn baay wala ñu bokk ndey ak baay waxi nappi ku mel noonu heure boo demee këram lu fay lekk sa lekk la sa tante mooy yaay ji la jur képp ku mu bokkal ndey wala képp ku mu bokkal baay këram lekk ya fa nekk moog sa lekku këréyam gannaaw ba suñu borom subhanahu wa taala teg ci li nga xam ne nag ak yaatal gu rëy la guy arrangé caamini bu baax a baax mooy seen xarit seen xarit képp koo xam ne nii ak xaritoo dox na seen diggante ku mel noonu nga dem këram fekkoo ko fa lekk gu fa nekk lekkal mi nga noonu ndax li wóor mooy bu ko yëgee da ciy kontaan li wóor mooy bu ko yëgee da ciy kontaan te itamit ñii ñu lim sànqit loolee la ci suñu borom préwaroon mooy dina doomu aadama sa rak sa sa sa sa doom ñëw na sa kër lekk sa doomu frère sa doomu baj sa doomu bàjjen ila axiri ñëw sa kër lekk loolee kay da nga ci war a kontaan sab xaritit na ko noonu heure boo xaritoog nit këram boo fa demee ma nga faam nekku fa lekk goo fa fekk lekkal loolee dagan na la loolu mbokk di ay teggin yoo xam ni suñu boroom moo ko joxe doonte ne ni société bu nekkit war ngay xam aada ya fay am mooy mbokk léeg-léeg ñun boo ñëwee masalan société bu mel ne Sénégal yow nga nekk gan ci sa kër xarit ngal la way léeg-léeg del xool ni ngay lekkee rawatina ci àll bi da ngay gis koo xam ne mën nga ñëw ñu rey la ak ginaar ginaar gi niñ ko reyee noonu lañ koy tegee ci plat bi ngalawaay bu ko sunnaal am déet boo ko sunnaal yi dafay de ndax fat càmm ngee ci waañ ba musu ko yaa ngi dégg ma nga ne ci waañ ba musu ko loolu lu ñuy war a jara xam la ay aada fokk nga xam ko nekk ci dinaa leen fii lu bëree bëri benn mbokk boo xam ne sénégalais la naam waaye demoon na jàngi ca bitim réew yàgg fa ñëw ñëw kër ga ñu nekk di reer ñuy reer man reer naa bu suur naa muy reer rek ah munu ma ko wax dara maa ngi bëgg mu jóg ma ne ko ah sa waay reeral de ndax kii mu doon bu santul woon ci am danaan ma ah non man koy suur naa sax waaye mun ah imam man koy suur naa da xanaa mu sunnaal ko rek ma ne ko ko de tey ma dee ma yaa ngi dégg bokk loolu ñun aaday Sénégal boo sunnaalee bool def xay déjà soxna si moom bu la indilee lekk nga lekk ko ba mu jeex rek moom day rus am déet dafay daal di rus loolee kon ay mbir la yoo xam ne nii it di jar di di bàyyi xel léeg-léeg ci savoir vivre ndax aaya yi kat suñu borom mu ne laallakum tànqiloon ci savoir vivre mooy gox bu nekk nga xam la fa xew masalan suma mbokk bi asan sañ yàlla na yàlla dulli ko yiw moom Canada da ngay dem sa xarit invité la añ wala reer su ngeen demee ci restaurant bi mu la invité di waaye bu ñu paree ku nekk yaay fayal sa bopp lu tax ndax ñoom xamuñu di invité nit di ko fay loolu du seen aada ma invité la nga ñëw contenté bi rek mooy déplacé nga pour man waaye nag ku ne yaay fay la sa bopp loolee mbokk da ngay gis ni boo ko defoon Sénégal soo ne woon Bilal Thiam tey invité naa la Novotel reer ñu ñëw nga commandé ba taabal ji fees pare facture ba ñëw nga ne ko ah yaay fay cinquante mille yi keroog ngeen di mujjee daje am déet loolu kon tamit gox bu nekk aada bu nekk nit ki da ngaa war a am savoir vivre moom la borom bi di wax laallakum tanqiluun borom boobu it teg ci ne bu leen ne amu leen benn xat-xat ci lekk mbooloo ca loolu it arab yi dañ daan am ñenn ñi personnalité ba bëgguñu lekk ci mbooloo heure bu ñu lekk kay dañuy beru parce que pour ñoom toog di lekk daal day wàññi seen personnalité comme niñ koy gisee lu bari ci sunu sëriñu tey si dañuy gis suñu sëriñu tey jii comme gars yi dañ leen yëkkati ba yóbbu leen fu fu ñu waruloon yegg néew na nga gis sëriñ bu toog di lekk am déet benn waay nee na ma dugg na ci benn car rapide gis benn xalifa xalifa bu mag teg ay barada kaas di ataaya am ko koy xool di xool ah lii day dessin la waaye xam nga suñ diw mos ko toog di ataaya yaa ngi dégg waaye mbokk loolu lu ci nekk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan nekk ak mbooloo mi da daan dem di ratt ratt xar yi di def lu nekk kon mën ngeen a lekk mbooloo mën ngeen a lekkit à part kenn ku nekk sa wàll waaye nag mbokk xam leen ni lekk mbooloo moo gën lekk kenn par kenn li ci nekk ci xéewal dafa bari trop amoon nañ benn mbokk tubaab bu daan jógee Canada di ñëw fii keroog bi mu njëkkee ñëw Sénégal nee na toog gaa yi wootante añ ñëpp ñëw ñu toog bool bi di dank di waxtaan nee na man jàpp naa ba ma juddoo ba tey tey laa mas a lekk ndax keroog la mas a def loolu ci dundam loolu it yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ay gaa yi ñëw ne ko ah yu mu yàlla yónni ñun daal dañuy ñaanal ndax ñun suñ lekk yi daal daa barkeelul dañuy lekk ci duñu suur mu ne xanaa da ngeen di beru ku nekk sa lekk ñu ne ko waaw mu ne dajale leen seen lekk ngeen wax bismillah yàlla barkeel lekk gi nga noonu lii ñetti nit beru ak platam ku ne sa plat lekk suñ ko dajale woon cinq personnes mën nañ ci lekk ba suur loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñun suñuy aaday maam xamuñu woon loolu ndékki en suñ càmm eh kaa ci ndéegalee waay dañuy daje ndékki añ reer loolu lañ daan def ci lañu daan profito di yaraale nit ñi di waxtaanaale di diisoowaale ba am na ku ci bind benn livre sax benn tubaab tudde ko l'éducation autour du bol mooy boo demee Afrique seen yar yépp ñi ngi koy def waxtu lekk dañuy teg raxasu bi kilifa gi mooy jëkk raxasu ñi ci topp topp ci ñu teg añ bi kilifa gi mooy jëkk laal ndawal li xale yi dañuy toog di xool ñu naan leen sëggal téyal nii bu gan ñëwee defal nii defal nii ca la ñu daan yare ca noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yare woon it ndaw ñi ko daan wër ca mooy kenn toog na ci ak moom muy tibb fii tibb fii mu téye loxoom ne ko yaa xulaam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wax ko ñetti kàddu ne ko booy lekk da ngay tudd yàlla lekk ci sa kanam ca lekk sa ndeyjoor wala ñu bàyyi ci xel bu baax it yéen les intellectuels tey jii boo demoon ci hôtel yu bari jël sa fourchette ci sa loxo ndey joor di lekk gars yi dañuy jàpp yow xanaa ki li koro nga jógee waaye kii xamul ah parce que tubaab bi lu mu ñu jàngal mooy càmmoñ ngay lekkee càmmoñ ngay naanee loolu nag mbokku abadan julit du lekk ndey càmmoñ seytaane mooy lekk càmmoñ biñ demee nag ba jaxasoo ak tubaab bi am na foo xam ne mën nañ ñu fa moom mooy wàllu ndékki moom teqalee nañ ñu am déet ci këro yu bari bari teqalee nañu suñu benn waay daa jógee Fuuta ñëw fële yëmbal gaa yi suba jot ñu jox ku nekk kaasu ka fekk dagg mburu ah ñu dem mu toog di xaar di xaar ba dix heures mu ne morom ñu wax wañ ñim kañ la ñuy ndékki ñu ne ko ndékki li ñu la doxal muy ndékki mu ne mu ne xay loolay ndékki ñu naan waaw parce que xamul loolu dañu xam mooy dañuy wootante loolee not nañ ñu ci waaye nag ngalla waaye képp ku ko man fexeel ba bul teqale sa ñam sa kër lu la yàlla may ci alal may la ci pouvoir lu mu mën a doon woo àndal ak seen waa kër ngeen toog ngeen añ ngeen toog ngeen lekk lu mu doon añ ak reer ak lu mu mën a doon ñam bi gën a barkeel mooy ñam bi ëpp ay loxo yu ko tiim loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom bàyyi loolu daa dina nag su ngeen duggee ci kër jàmbur wax nañu kër yi ñu war a dem te loolu it muy wone ne nit daa war a jokk mbokk wala waay yéen jeunes yi tey xarit lañu xam xamuñu luy mbokk da ngay gis ku nekk ak ki mu bokkal jege lool ci biir dëkk bi wallahi mbokk du bërki démb du démb no du bërki démb du bërkaa ci démb bëccëgu démb démb démb benn xale bu jigéen mi ngi may téléphoné ci géejawaay di ma wax benn cas koo xam ne nii dafa dajanteeg beneen xale bu jigéen ñuy waxtaan xaritoo ba mu ëmbal ko bi seen baay deeyee la ñuy doog a xam ñoo bokk benn baay xoolal mbokk loolu démb laa la wax démb lañ ma wax lii loolee kon ñu gis ne nit ñi noonu lañ mel dañ gis koo xam ne am na kër fële am na kër fële mais njabootam du ñu xamante mbokk loolu musiba la nemmeekul képp ko bokk ak sa ndey képp ko bokk ak sa baay nemmeekul seeni doom loolee mbokk ci jaamu yàlla yi gën a rëy la bokk mooy silatu rahim moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yàlla moo bind mbokk dagg ci aw turam jox ko mooy arrahman mu tudd ko rahim mbokk jóg ne ko ah sama borom baa duñ ma dagg mu ne ko demal ku la dagg ma dagg ko ku la jokk ma jokk ko loolee mbokk bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax ca mooy jokkoo la nga xam ne nii moom mooy li nga xam ne mooy seenu mbokk ah suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni su ngeen duggee ci kër gi galla waaye ah jàmm ngeen fanaane njaay jóob sow loolu day baax na ay supplémentaire la waaye defu leen la yàlla santaane de suñu borom dene bu ngeen duggee ci kër nuyoo leen ni yàlla santaane ñu nuyoo ko mooy nuyoo bu jóge ci yàlla sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mooy assalaamu alaykum ci la gën a gàtt wa rahmatullah wa barakaatu ci la gën muy nuyoo boo xam ne boo ko waxee indi nga barke ci kër gi xoolal waa kër gi toog kenn dugg ci ne leen yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen mbokk ndax valeur boobu nit ñi xam nañ ko yal na yërmande yàlla nekk ci yéen ñoom it ñu daal di lay tontu nga am tuyaaba ñoom ñu am tuyaaba loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax li suñu borom ne ala anfusikum mbokk julit ñi benn lañu li nga ñaanal sa mbokk julit ñaan googu day dellu ci yow lii metti sa mbokk julit da la war a dellu donte ni it borom xam-xam yi gis nañ ca ba tey bu doon da ngaa dugg ci sa kër fekkoo fe kenn waxal assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ñu ngi ñaan yàlla jàmm ci ñun di ko ñaanal yépp jaamu yàlla bu baax yonent bi alayhi salaam jàngal nañu ne waa ji taaya ba yegsi ci assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yal na yàlla wàcce ci ñun jàmm wàcce ko ci jaami yàlla yu baax yi dana ëmb nit ñi malaaka yi jinne yi képp ku baax loolu dana ko ëmb loolu di mbir boo xam ne nii ñu bàyyi ko xel mu ne nag lii samay aaya la maa leen ko leeralal ngir ngeen xellu yal na yàlla boole ñu ci jaamam yu xellu jazakumullahu khayra suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne innamal mu'minun ña nga xam ne ñooy aji gëm ya daal allazina amanu billahi wa rasuli mooy ña nga xam ne gëm nañ yàlla gëm ab yonentam wa idha kanu ma'ahu ala amrin ala wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami' heure bu ñu nekkee ànd ak moom ci mbir boo xam ne mbiru mbooloo la lam yazhabu hatta yastazinuhu du ñu dem mukk lu dul ñu daal di koy ñaan ndigal inna lazina yastazinunak ñi nga xam ne ñoo lay ñaan ndigal day ulaika alladina yuminuuna billahi wa rasuli ñooñu day ñooy ñi gëm yàlla gëm yenenti yàlla ba fa ida staazanuuka li baadi sha'nihim heure buñ la laajee ndigal ci lenn ci seeni mbir fa'zan liman shi'ta minhum joxal ndigal ku la sob ca ñoom wastaghfir lahum allah ca nga jéggalul leen yàlla inna allaha ghafurur rahim yàlla day kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la laa taj'alu du'a ar-rasuli baynakum bu leen def mukk wooteb yonent bi ci seen diggante ko du'a ba'dikum ba'da comme wooteb ni ngeen di wootente lenn ci yéen ca la ca des qad ya'lamu allahu allazina yatasallaluuna minkum liwaza yàlla day xam na ñay rocceeku ci yéen liwaza di laqtu ku nekk ci sa moroom falyaxdar allazina yuxaalifuuna an amri ay waay na moytu ñi nga xam ne dañuy juuyoo ak mbiri yonent bi ay ndigalam an tusibahum fitna ci fitna dal ci seen kaw aw yusibahum azabun alim wala mu dal leen lii di mbugal moo xam ne mu tar lay doon ala li am day inna lillahi ma fi samawati wal ard ñeel na yàlla la nga xam ne mooy nekk ci kaw asamaani ak suuf qad yaalamu ma antum alayhi ca xam ne la nga xam ne yéene nga ci yéene nga ca wa yawma yurja'una ilayhi ak ca bis ba ngeen di di dellu ca moom day fa yunabbi'uhum bima amilu dana leen xabaare ci lañ doon jëf wallahu bi kulli shay'in alim yàlla bépp mbir mooy aji ki ka xam mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala dafa bëgg julit ñi lépp lu ñuy def ñu def ko ci mbooloo te ji ñu ngi daje fii ci néegub yàlla bi lan moo ñu fi indi ku nekk mën nga julli sa kër waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dem ca mbooloo ma julli day moo gën ñaar fukki yoon ak juróom ñaar nga julli woon sa kër loolu kon mbokk mooy mbiri mbooloo yàlla subhanahu wa taala barkeel ko loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaam woote dañuy nekk di diisoo ci mbiri jihaad diisoo ci mbiri lépp lu yitteel jullit ñi ngal la waay jullit ñi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne bala ñu faa jóge daañ laaj ndigal yonent bi ndax mën nañoo demam mënuguñoo dem ñi nga xam ne bu ñu toogee ak yow du ñu dem mukk lu dul ci sa ndigal ñii day mandarga buy wone ne gëm nañu yàlla gëm nañ yonent yàlla heure bu ñu nekkee ci mbiru mbooloo mi na doon ci front bi lañ nekk di jihaad wala ci lu mu mën a doon ki ñëw laaj li ndigal seetal ñala ca neex nga bàyyi leen mi ngi noonu ca loolu suñu borom mi ngi koy yedd ca surut tawba biñ demee ñi war a dem jihaad naafiq yi ku ñëw rek yow mu yàlla yu ni sama soxna bi daa feebar sama kii dafa nangam suñu borom ne ko afa allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu alkazibin lu tax ku ñëw rek nga ne ko toogal demal ca leerlu wa ba xam li muy wax dëgg lam déet ko nit aay bi li muy wone ne bu ñu nekkee ci mbiri mbooloo képp ku ñëw joxe excuse na day dem yonent bi war naa gëstu xool ba xam ndax li muy dem ci ci dëgg la ko teg wala déet su boobaa mu doog koo jox ndigal ba pare ñaanal ko yàlla jéggal ko ndax mbir moo xam ne mbiru lislaam la yonent yàlla baa nga fa yow nga bàyyi leen fa dem mbokk loolu rëy la kenn waru koo def lu dul ci extrême nécessité moo tax mu ne ko jox leen ndigal ci ñaanal yàlla jéggal leen ca loolu it mbokk ñu bàyyi ko xel bu baax bokk na lu yàlla di nangu jullit ñaanal njéggal moroomu jullitam te loolu yi tamit bokk na ci loo xam ne lu nit ñi di war a gën a bàyyi xel ñaanal ma dëkk bi temps yi dafa dëgër ñaanal ma liggéey bi temps del ñaan yàlla sa mbokk jullit ñu ñaanal la yàlla jéggal say bakkaar ñu nga noonu ñaan yàlla jéggal la say bakkaar dajeeg Cheikh Moussa ah Cheikh Moussa bu mu fàtte si ñaan de ñaanal ma yàlla jéggal ma say bakkaar de yaa ngi dégg loolu mooy li gën a màgg ci loo xam ne nii jullit dana koy am kon ñaanal leen yàlla jéggal leen seen bak seen bakkaar mi mi ngi noonu suñu borom mu ne walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul la wajadullaha tawwaban rahima yonent yàlla bi kum jéggalul ca fekk yow defoon nga la tax yàlla jéggal la yàlla day nangu sax jéggal ndax yàlla mooy jéggalaate di yërëmaate mu ne nag bu leen def woote bi yonent bi ni ngeen di wootante borom xam-xam yi am nañ ci ay wax am nañu ko firee ni bu leen yemele ñaanu gi yonent gi ak ñaanu seen bopp am ñu ko firi bu leen yemele convocation bi yonent bi di woote ñu daje ak convocation bu keneen di def donte ne lu ëpp ci borom xam-xam yi lañ ko firi mooy bu leen woo yonent bi ni ngeen di wootante seen biir ya abubakar ya omar ya nangam déedéet day leen wax ya rasulallah ya nabiyallah alquran ba mu jeex yàlla woowu ci mukk yonent bi waxul mukk ya muhammad wax na ya ibrahim ya musa ya nuux ya isa ya daawud ya ila axiri ñoom ñëpp woo na leen sauf yonent yàlla bi fu mu koy woo naan ya ayuha nabi mi ngi noonu loolu rek la koy woowee su ko defee kon it du jaadu nit ki di wax naan qaala muhammad sallallahu alayhi wa sallam déedéet qaala muhammad di di ko sallalu comme ni wala fi wax sallalu déedéet qaala rasulullah qaala nabiyullah waaye kenn doo qaala muhammad bu leen yemele yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngeen di woote ak yéen ke yonent yàlla la dañ ko war a jox gëddaam ca mooy bañ a xool côté nit ki mais ñu xool côté yonent gi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa taala nag nee na xam na ñi nga xam ne ñoom bu mbooloo mi daje ci jamonoy guerre wala leen duñ ñëw sax di la laaj dañuy bàyyi ba nit ñi xoolee na fàtte rek ñu laqatu nang ku rocceeku ne mes dem seen yoon xam ne yonent bi du ci xam dara waaye xam leen ne yonent yàlla bi xamoo ko waaye man yàlla xam naa ko te loolu it mbokk yonent bi xamul woon kumpa donte ne ne nit yi ñoo gannaawam jàpp nañu ne nguurug yàlla gi dara umpuliin ci ci kaw asamaan ak suuf waaye loolu njuumte la suñu borom mu ne moom moo xam loolu ñoom ñi lay làqatu xamoo leen man yàlla xam naa leen waaye borom bi mu ne na moytu ñi nga xam ne dañuy wuute ndigalu yonent bi fitna dal seen kaw fitna boobee la ëpp ci borom xam-xam lañ ko firee mooy ñu dem bokkaale wuute yonent bi ci sunna day yóbbu ci shirk bokk julit suñu borom mu ne xaatiluhum hatta la takuna fitna mooy xeex la nag ñoom bu fitne jóge fii ca mooy shirk loolu tax mbokk biddaa dangereux képp koo gis commencé mu jël ay biddaa la doon ay zikr laak yooyu commencement ay biddaa la mu koy jëfe mais bu yàggee rek ka nga xam ne mooy cosaanu mbir ba mu yóbbu ko place yàlla am déet lii ngeen gis fii yépp lu bari ci ay tarixa ak yooyu cosaan ba mooy ña ko doon def dañ koo defoon ngir nit ñi seen temps ñu bañ koo yàq di bari zikrullah del def lii suba def lii ngoon def lii nangam muy biddaa mais day dem ba yàgg rek ñu wëlbatiku mbir bi nag soppee ko def ko shirk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax looloo tax sos ci diine yàlla ji day tax nga teg sa place place yàlla it ndax yàlla rek am droit def sharia imaamu malik rahimahullah gis na benn waay ca juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi làmbaayu daa ji ne labbayka allahumma hajjan yàlla maa ngi labbayka pour aj imam malik na ko ya axi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dafa demoon ba zul xulayfa fa la armée la woon dem aj mu ne ko waaw imam lan mooy différence fii ak zul xulayfa mu ne ko différence bi mooy safaanoo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah suñu borom nee na na moytu ñuy wuuteeg ay dëgalam fitna dal leen te loolu mbokk mi ngi noonu kooku la muy def jàpp ne lu baax la au lieu may dem ba zul xulayfa doogoo armal di labbayka labbayka lu baax la rek naa ko commencé jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais moom Malik dina ko mukk ci àdduna loolu ëpp naa def ndax yonent bi defu ko keneen koo xam ne nii moo jiite imaamu Malik muy Sayyid ibnu Musayyab nga xam ne papaam sahabi la nekkoon ne imaam ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo nodd fajar ba pare mu gis benn waay jóg dóor ñaari rakka toog jóg dóor yeneen toog jóg dóor yeneen mu ne ko yaa axi suñu noddee fajar ba pare ñaari rakk rek lañ am droit nafila mu ne ko waaw imam yàlla dana ma mbugal ci julli mu ne ko déedéet yàlla du la mbugal ci julli waaye mën na laa mbugal ci safaanoog sunna yaa ngi dégg mën na laa mbugal ci safaanoog sunna yonent bi alei salaam nee na ku xeeb suba sunna bokkoo ci man kon yemal ci ñaari rakka yi mbokk lii nag moo teqalee diggante nit ñu bëri nit ñu bëri heure boo waxee bi daal ñu ne waaw xanaa du day wax astafurlah xanaa day wax laa ilaha illallah xanaa day wax nangam nangam na am li ngay wax baax na mais yonent bi ak ak i sahabaam daaw ñu ko defee noonu seetal ni mu baaxee nga defe ko na ko yonent bi sahabaam waxee ñun ñëpp ñoo xam ne aspirine baax na ñun ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko mooy comprimé universel ñëpp d'accord nañ ci waaye doona baax ne rek booy ndékki jël juróomi aspirine booy naan añ jël juróomi aspirine booy del jël juróomi aspirine déedéet lu baax lu ne daa am fu mu baax lu baax lu nekk rek daa am fu mu baax loolu di règle boo xam ne jullit gànnaayoo ko wulu yàqal mukk si diine lii baax ne naa ko def déedéet lépp lu baax rek daa am fu mu baax jeex na suñu borom subhanahu wa taala ni xam leen ne nag yàlla moo moom nguurug asamaan ak suuf lépp yàlla ko moom muy woññi ne kon lu dul yàlla rek jaam la am déet lu dul yàlla rek jaam la bokk na jaam ya gën a tëdd ay yonentam ña gën a tëdd ay malaakaam jibril mikail ñoom ñëpp ay jaam lañu yow jullit nan ngay sàggane ba yaakaar sa moroomu jaam jaam boo xam ne yàlla ko bind yàlla koy taxawal la hawla lahu wala quwwa amul kattan amul pexe yàlla mi am kattan ak pexe yépp nga bàyyi ko fi dem di yaakaar sa moroomu jaam loolee mbokk ëpp naa def suñu borom nag mu ne xam naa lépp lu ngeen di def lépp lu ngeen nekk rek xam naa ko te loolu mbokk fa lillahi alhamdu soo demee ci suratu yunus mi ngi naan wa ma takun fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين suñu borom mu ne xam leen ne amul lenn lu ngeen di def ci kaw suuf amul fenn fu ngeen di toog di jàngal quran amul benn jëf bi ngeen di jëf gaa yi xul leen wax bi nekk yàlla waxe nee na amul lu ngeen di def amul alquran bi ngeen di jàng amul jëf bi ngeen di jëf loolu bokk na lum lay jàngal bokk na li gën a tedd lu doomu aadama di toog di def ci kaw suuf mooy jël tiirab yàlla bi di ko jàng yal na yàlla nangul ñu liñ ciy def ak lañ ca nar a def loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax kala waaye heure boo amee jot bu ko yàq ci cinq heures de temps ci portable ak ay information ak xabaar yu kenn xamul amul bopp amul genn kala waaye jagleel ko téerab borom bi suñu borom mu ne lu ngeen nekk maa nga ci wala mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala ni bis bi ñuy dellu si ci moom dana xabaare ku ne la nga doon def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni bu dee ab julita yàlla dana génne téeréem ci téere boobu it yéen ñëpp yàgg ngeen dégg ca bañ ji fàtte amul bus bu nekk lu dul yàlla boole la ñaari malaaka ci suba ñuy enregistré lépp looy def ba takkusaan suñu borom relevé leen indi yeneen ñaari malaaka ñuy enregistré looy nar a def ba fajar jotaat loolee ab téere lay doon yowmal qiyaama soo ñëwee ñu ne la bëcc sa téere ngoog iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku nekk ñu jox la sa téere su ko defee suñu borom yàlla bu dee saay saay see da leen di attee ci kanam yi ñëpp mi ngi noonu ñëpp toroxal leen amma nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Abdullah ibn Umar nettali nee na bu dee ab julita bu defoon ay njombe suñu borom yàlla day jël téere bi daal di koy jegeel ba mu jegee mu ne ko diw xam nga yaa doon def nangam de xam nga yaa doon def nangam xam nga yaa doon def nangam suturoolool naa la ci àdduna bis na ki tey sutural naa la demal jéggal naa la ñu jox ko téeréem ci ndey jooram yal na yàlla boole ñu ci ñooñu waaw loolu it mbokk ñu bàyyi ci xel moo tax it yonent bi sam daana wax ni sama xeet bi di dañ leen yërëm baal leen suuf ñuy siiwal ay bakkaar parce que bakkaar benn baaxu ca ba nga ci nëbbëg ba nga ca feeñal waaye nag bokk ñu li gën a garaaw mooy bakkaar bi nga feeñal ndax keneen dala cay royee di ko jëfee nga dee fekk musiba baa ngi continuer lii kon mbokk la ñuy borom bi subhanahu wa taala wax mu ñuy bàyyi xelit lii di suratu nuur te saar bu ñu daloon mu ñuy tegtal ak leer gu ñu war a jaar yàlla mi ngi ko mujjee fa ñuy mujjee gaa yi nuur la de ab lampe la de mu lay niital chemin bi nga war a jaar fan nga jëm yaa nga jëm ca yàlla ca kanamu borom bi soo demee ci yàlla nag lépp loo doon def ba kër da nga ko fa fekk mu nettali la ko su doon dëppoo nag ngërëmam kërug ngërëm ga nga jëm kërug teraanga ga muy aljanna yàlla na yàlla defa ko suñu wàccuwaay amma bu dee ne da ngaa sàggane woon leer googee nag di tañax tañax yi ci lëndëm gi ba yegg si fekki ko ah loolee moom yàlla na yàlla musul ñu ci mbokk kon mi ngi noonu wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mi ngi noonu ala kulli xaal saar bi jeex na su doon te ni am na ko doon laaj di jëm ci saar bi tolloog ñetti minute su dee ne am na naam su dee ne waaw bismillah naam ala kulli xaal waaw mudd koor day liñ ci wax rek mooy borom xam-xam yi dañ ci wax wax yu bari mi ngi commencé daal deux kilos ba am ñu ci wax trois kilos sax mi ngi noonu ku mel ne Cheikh Ousaymin rahimahullah nee na mudd yonent bi deux kilos la yu teg quarante grammes donte ne quarante grammes moom am ngëb la rek li wóor daal moo dina ne bopp bu ne boo ko jëlelee deux kilos ak genn waa liibar moom baax na mi ngi noonu nga wallahu subhanahu wa taala alam ki nga xam ki nga xam ne da ko am sàgge na ko génniwu ko bañ julli ba pare sarax la am loolu ñu bàyyi ci xel bu baax sarax ordinaire la am waaye amul zakatul fitre amma ki ka fàtte wala ki ka amul ku mel noone yàlla subhanahu wa taala baal na xeet bi lépp lu xat-xat nekk heure boo ko amee nga génne ko yàlla dana la ko nangul ki ka fàtte it complètement heure boo ko génnee yàlla dana la ko nangul comme julli gi nga fàtte woon heure boo ko jullee yàlla nangul la ko amma ki ka tey nag denc ko génnewu ko ba julli ba pare loolee moom amul zakat wallahu subhanahu wa taala alam kon mbokk subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk